ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf. ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf. xoolal suñu baay Serigne Abdoul Khadir Mbacke. xoolal suñu baay Serigne Abdoul Khadir Mbacke. yem si kal nee na bu daan dox dafay mel ne malaaka muy dox. yamshi mustahdiran azamatillahi fi kulli uh, marahil fi kulli awqaati. nee na waxtu wu nekk bu daan dox mi ngi teewlu màggug yàlla. farlu la ci wàlli diine di imaamu Touba di koo xam ni dara du liggéeyam lu dul jàng ak jaamu boromam El Hadj Ousseynou Diagne. jaamu yàlla. mi ngi nuyu digal nu sax ci jaamu yàlla. ci sunnat rasulillah ci sunnat Le visage toujours épanoui par un sourire de mansuétude, Serigne Abdoul Khadr n'a jamais cessé de recommander aux talibés de suivre les prescriptions de Dieu et la tradition du prophète Mohammed, paix sur bis eh, eh, ku ñuy wax sëñ Dame Diop nee na dañuy jàng xasaay bi gës bi bi ñuy yëkk foo ko sëñ baa ngi toog bi ñuy di yëkkati yëkkati ba àgg ci ba yu ñax sali nabi xaaral wara bil adim yaawoon ko faa nii wa dabi sëñ bi xaa ne loolu de sëñ Tuubaa maa mu doon jëmm joo xam ne ju yàlla tànnal boppam la bokk ci tànneef yi sëriñ Abdou Khadir dégg tur wi waaye xam ko lu doy waar soxla adduna ji amu ci dara dara dara dara dara lu mu soxla lu dul biir yaram gu mu jëfee ndigal yàlla képp moo ko ñor amu seen ci loxo ba ci col mi ni mu daan kaalawoo ni mu ni mu daan ubbee bu di ko dugg yooyu yëpp ak ni mu daan jekkee mm. dangay boo delloo ci sunna gis mm. lu koy jëmmal mm. fii euh, na lépp tey nag kon loolu rek طريقة الإسلام بوضوح والزائدة والكبر والعاطفة والتتحد والوطن من المذكر والثاني من الشركاء إلا من قال الأخرى معتين وأصحاب الأخرى إنا ثيابهم ومن علينا حسابهم الله والله في seede ko bokkulul tarixa war na caa doy kere ba mu wàccee liggéey imaam Maodo Sylla lu mu waxoon kii dem tey mooy ilimaanu ilimaan yi te loolu day lu suñu borom def ñi nga xam ne sax duñu ay taalibeem seera nañ ne mooy imaamul aima ma sa bokkal fulugub jamono ngeen bokk waxtu wi ak doon mooy sa ilimaan foofu bala ngaa julli musulman am na ci nitu yàlla yi ñoo xam ni lañu ñu woon ak suñu boroom matal nañu ko sëkk seen dund seeni jéego ak seen jaar-jaar lépp a leer lépp a jëmm ju xam te teel a ràññee mission ci kaw suuf te mosu ci wàññi dara ba muy ndaw la tàmbalee yanu texem xeet wi ba mu ganee àdduna la tàmbalee ramu ñoñam li muy defaree nit ñi ci jëmmam la nekkoon ku ko mës a gis waaru ku jataayoo ak moom yaru azul imaaman xudwatan lil huda yahdi li mu wax ne da daan jubale ci ak nit yi li sëñ bu mag bi wax rek ci xoqal bu kaaw wax ne nit ñi nga xam ne dañ daan yare am na ci yoo xamante ne si benn bi xaalin wax daw abadan wax daa abadan am na ñoo xam ne benn melo rek la ñu yaree waaye am na ci ñoo xam ne si nee na seen jëmm ak lépp day yar diiney lislaam la doon yeesal ba faf doon lislaam dundam gépp da ko jiite moo tax muy ilimaanu ilimaan yi borom baxdaat ki yoonu murit daa xoole cheikhul xadim ndax niru baay ba moo fi saxal istiqaama teg ñépp ci siraatal mustaqima melokaanam ak jukkoom juddoom baa ñu koy tegtal askan wu baax te sell wu doon diine ak ngor ak xam-xam waaye nag nit bu ñu bëggee xam tedd dangay feeñu àddinam faaw dañu xool ab juddam ab juddoom nu mu demee baayam ay yaayam lépp di maaram balla ma ca ngay aysa ak saajo soxna kànni aysa mu balla moo meññ ndeyam aminta may rakki mbakki buso ci néegub tëggeej la bokk mooy mbokki waa boofel ak waa Gédé Njaay euh, Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ci wàllu askanam rek wane na ne li sunu boroom waxoon ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi wal tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi sunu borom waxoon dëggu na ci moom moom ci askanam niti diine ak xam-xam hmm. ak yare ñoo ko seq Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu ñëpp xam mooy way juram moom foofu danaa ndax li ñu tudde eh, juddu bu rëy wala yax bu rëy ni ko wolof di waxe ci sëñ Abdou Khadr la kan ni Aïcha soxna Aïcha moomu ñu koy dàkkantale mm. mooy way juram wu jigéen di doomam bal Aïcha mm. xam ne kon sëriñ Mor Dieye dafa dem kër baayam bu ndaw mam Balla mi bokk baayam benn aw ñaag baay hmm. jël fa hmm. soxna Aysa Balla hmm. soxna Aysa Balla am ja soxna as soxna Aysa asta Aysa kanni Aysa moomu nag moom lañ dénkaat sëriñ Bousso bi moom génnut maaram fenn maaram la ci fànn yépp waaye Aysa Balla mooy maamam asta aysa moo demoon njaayeen hmm. way juru sëriñ ibrahim ibrahim hmm. njaay sëriñ seex njaay sëñ babacar ñoo ñu bokkal hmm. soxna kani nag bi soxna faati bàll la wàcceeb liggéey dañ lañ jël soxna kani mi nga xam ne aysa mi ko jur ak faati bàll ñu bokk ndey ak baay ñu indi ko ci néeg ba mu am fa nag sëriñ masamba kani sëriñ mbàkki kani soxna amina ak ñaaw sëriñ moxtaar sëñ Abdul Xaadir génnut maaram fenn day mel ni man ni deme ci maaraam néew na ko ca demee noonu maanaam néew na ca loolu koo ci fekk ndax am na juróom yoon ci maaram juróom yoon ci maaram loolu nag boo doon seet ñi ko ci am néew na. kon ci wàllu askanam mën nañoo wax ne askan wu tedd woowu ci la bokk la askanu diine la askanu la. ko woon.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 waxtu wu màggee di ramu nu xam ni gaynde daa yemu ba muy dikk la sedd woon moom bu newoon te aw turam moo di meloom moo doon it jëfam ca kaw suuf abdul xaadir mooy jaam bi jaamu alxaadir bu wér daaru alimul xabir la ganee àdduna juddoom nga moo ràmm waa àdduna waaw moom xam nga sëriñ bu xaadir dañoo wax ne mi ngi ganee àdduna fii ci daaru alimul xabir xam nañ ne sëriñ bu mag bi radiallahu anhu fi la bàyyi woon lenn ci njaboot gi bi mu jógee ci yéen jëm njaareem mm-hmm. wàcc na fi sëriñ Daam Abdourahmane mm-hmm. bàyyi fi ñeneen njaboot gi mm-hmm. Cheikh Abdou Khadir yàlla dogal na kenn la ci ñi fi feeñe wax ne ne ñetti fan yi mu di bisu ajjuma euh, ci la woon eh, caatum 1914 ca novembre mu novembre 1914 ci la gën a àdduna ca ca ca ca ca ndaam waaye bi mu gën a àdduna la indaale ab cëram. ba bi sëriñ bi yónni maam Thierno mu di ko jox aw tur la ko ne na nga lootal saw yoon bii ngay dem ba bi ngay dellusi si ku la fi jox loxo daañu ko jéggal. fan la jóge nag leerut am na ñu njaareem ñuy wax Touba am na ñu ne booba la nekkaat fii di sa njaat kër gi. Hmm. wax loolu ma ne ne sëñ bi daa ne ci moom ngir mu jox ko tur am nañu wax loolu maam Thierno moo wax wax ju solo jooju ñu xamit ne sëriñ bi da ko waxoon ne ko ba ngay dem fi ngay jóge ba ngay desiwaat ko fi dajal ñu jégal ko tax ne maam Thierno ci yërmaande ja yaat barab fu mu jaar woo nit ñi ñu génn gis ko mu door a jàll loolu wax nettal nañ ko bi mu dikkee tuddee ko jox ko turu Abdul Qadir kon ma bëgg ngeen xam ne que te loolu tam te liggéeyal guddi yàlla dara yu say boo bés doy na ko ci dara ja te yokk Abdul Qaadiri fi baatinin wa zaahiri bi jaay bàyyi taahiri bam fat bi jiirim xarnu bi te yal na Ibrahima moom ci suñ boroom ba sotti mbooti turandoom Abdul Qaadir ji nag la ko tuddee it leerut hmm. am na ñu jàpp ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaani nga xasee ñu li ne. daf doon dikkal sëñ bi. mel ni di jàmbat ne. amul fi turandoo. am ñu jàpp ne maamam Cheikh Abdul Xaadir moom moo xam ne mooy taawu maam Balla. ndax moo ko soxna Aysa Balla ñu bokk ndey ak baay. soxna Aysa Balla moo jur soxna Kanni. soxna Kanni jur soxna Aminta Bousso. kon seq nañ lu ñuy wax man ko tudde waaye li nga xamoon ci sëriñ bi nag mooy néew na ci ay njabootam ñu mën a wax ne diw lañ ko tuddee tur yi mu doon delloo ci yàlla mm. di ko tudd yonent bi la mm. ndax abdu naa ne mu yëpp tur yonent bi sallallahu alayhi wa mm. kon ndax Cheikh Abdul Xaadir Jilaani la ndax Cheikh Abdul Xaadir Mam la wala Abdul Xaadir la tur ci tur bi lu ci nekk mën naa nekk wax wax ne benn la ci day laaj dalil bu bu lay lañ mën a wax daal mooy Cheikh Abdul Xaadir tur la ci turi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Abdul Xaadir Jilaani noonu la tuddoon maam Abdou Khadir it maam la ci moom tuddoon ko loolu lañ mën a wax ci baay baa ko boole koog way juram mu sëriñ ndaam moom bi mu fi nekkee fi la nekk ndaam ba bi toll amee juróom ñaari at war a dal ci la sëriñ bi yebal lañ jëliw teewloo tuuma ki ko yóbbu woon waaye bi muy wàññi ko di ñëw moom wax nañ ni maam aw busa bi ko sëriñ bi bindalee ci àll dalal ko wax nañ ni da ko booleeg maama bu su moo ko delloo si wan daam wax ne sañ daam nooy di ko jàngal kon sëriñ bee ko woo wax nañ ne bindal ko dalal ko soxna ma awa delloo si ko tu ndaam mu ne ci sëriñ ndaam Abdourahmane fi la nekk di jàng ba ni sëriñ bi ñu bisee Tuubaa sëriñ bu boppam ne ma Seexul Xaadim day guddi gàmm laa ko mujj gis bal reere ba noppi wax na sax reer waram doon la ma jébbal sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke nag yor ko ab diir ñu ndigalul sëñ bi sëñ Birahim yaa jàngal na ko alxuraan la ci ëpp lépp nag da koo joxaat sëñ Asan sëñ Asan moo ko motal lépp ginnaaw bi la fi door a jóge sëriñ jël ko yóbbu Gede boole koog sëriñ Ibrahima Ndiaye moom ma la waxoon ne la sëriñ Ibrahima Ndiaye nga xam ne moom soxna Asta Aysa mi ko jur ak kànni Aysa mi jur soxna Aminta ña bokk lépp foofu la mottalee alxuraanam ba bind fa kaamil bi noppee ci loolu nag ci la tàmbali jàng xam-xam ci sëriñ Mbàkke Buso ak sëriñ Mbàkke boole woon koog sëriñ Xasan bari njàngam ci sëriñ Xasan la ko jàngi waaye sëriñ Mbàkke nag moo ko tàmbalil boolewoon ko sëñ Assane mu ko jàngal. moom jàngee ba sori yi wax nañ ne jógee na fi dem njaareem doon jàng ci sëriñ Ahmad dem am na fab diir yàggut mu dellu siwaat gere waaye kon mën nañu wax na ci njàngum xam-xam ëpp bu ñu waxut lépp gere la ko defee moom fa la jàngi téere yu ndaw ba ci téere yu mag yi ñoom muxtasar yi doora nag dugg dugg geneen geneen geneen geneen xayaat gi waaye tolloo ci jàng bokk na ci li mag ñi nettali ci moom ràññiku gum ràññiku woon ci fonk jàkk xam ne sëriñ Mbàkke nee na geesu ci jàkk ji wenn waxtu gisu ko yàlla na yàlla wuutu ko ca ak njabootam sàmp ko woon ñu góobi aar leen ci dog yi ak yeneen yàlla na yàlla wuutu ko ca ak njabootam balim ji woon ñu góobi ko aar leen ci ndog yi ak yeneen te aarakam sayxul xadiim mi wuutu baayam ak magam yàlla na sut aw fan magam yàlla na matal lañ yéene woon te aarakam sayxul xadiim mi wuutu baayam ak magam yàlla na sut aw fan magam yàlla na matal lañ yéene woon te nii mu jàppe xaritam Cheikh Moustapha muy jëwriñam fa mbir yi teg ko ci loxoom yàlla na yàlla sàmm leen sëñ Cheikh de nii nga def ni la Cheikh Moustapha yewit ni la gopp kee aléer bala ku yewu nag jàppale leen kenn mënu leen jaxase ngir buur bi moo leen jaxase seen buumi xol la laxase yéen noon yi daw leen tar su ngeen xarit bu sëñ Cheikh Massa am Cheikh Moustapha suñu borom binduñu lu dul ngir ñu jaamu ko jaamu yàlla julli bokk ci ponk yi ci gën a rëy moo tax ñu tudd ay jullit Cheikh Abdul Xaadir jullit xaqan jullikat ay taalibeem seera nañ ne mooy imaamul aima kooku day caaxaan weewu ko ab juddu juddu rek meewu ko juddu bi day ànd ak jikko ak melo waral loola maanaam Cheikh Abdoul Khadr fu ñu ko tuddee ñëpp seen xel li muy jëkk dem mooy julli. ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tiñ ba ab ba si daa mel ni gopp bi la yoroon. fonk gim fonk lislaam ak julli juróom man foofu lay waxe incha allah ci fiñ fi jaar maak moom. maa ngi leen digal. ngeen sax ci jaamu yàlla. nee na mi bii nga xam ne dañoo newoon ci daara ji. di liggéey buñ masaan agsi ci koo xam ne dañ ko war a def jawriñ ndax lay wax ne la bu ngeen demee di liggéey. di liggéey di waxtu julli jot. na ngeen dem jàpp. fab seen gopp sëpp. wut kenn mu jiite. ngeen julli door liggéeyaat. loolu la santaane moom. sëñ bi. amul noor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lëndëm soxalul sax daanaka àndandoo fu mu déggee kaddu gu yëkkatiku ca jàkka ja sol naw daal la mu jógul ci jàkk ji. daa soj wala daa mbooy wala fa ngelaw waxtu wu jot bu julli jotee. buy taw it yaa ngi seen muy nitu làmpam yoru pare solam ñuy julli si. fu mu mës a ci jàkk ji lay jullee. dem na ba sàppeem si. Hmm. kum kum ci miin nga xam ne bu geesoo gis la rek luñ ko mën a wax ci yow it danaa déedéet moom de ko fonk jàkk ji la te fu ñu geesoo gis ko waxtu yëpp la mus mus fu am naayib moom seen Buxaari mus ta am naayib ci jàkka ji mm. jàkkay këram amul naayib mm. waxtu yëpp mooy jiite mm. loolu it geneen karaama la Euh, danañ faral di nettali sax jamono yi nga xamee ne soxna Maymunatu Alkubra di magam ñu bokk lépp wàcc na liggéey mm, mbooloo meeg kilifa yeeg yëpp ñëpp ñëw di ko ko jaal ci waxtu yor-yor woowu waaye bi waxtu wam daan jooxe subxa boobu maanaa fay naa ngi googu ñu wax ñu yor-yor bu mu jotee dafa daal di bàyyi ñëpp dal di dem defee ko dama ko daan defee ba ñu ko waxee mu ne waaw moom mii ñuy ñaanal dafa liggéeyal boroomam ba wàcc. man nag maa ngi ci àddina di liggéey wàcc ko ma. julli ci boo gisee mu waaj rek wuti na jàkka ci waaye dem ci mbooloo mi tax ko waaj de déedéet. ak yam yàlla moom ci kër ga lu may ji jàkka ji rek. moom daal bu ñu noddee lu mu doon def du ne bàyyi na ko moom lu may dem ci jàkk ji ba dellu si képp koo xay kii bu sëlmalee geesu gis la it yow yaay xaritam kër sëñ Abdou Khadir ajjuma nit ñëpp xam nañ bu mu di xase jot koo gis naan ma ngay wàcc ndax lan moom amul programme ci bis boobu lu waajal julli gi daa am si Mbàkke maa daan yeewul teel tàngal kafe bala ñoo noddu fekk ma tàngal na kafe ba noppi am bis boo xam ne dama xaw a biddanti bi ma yeewoo ba bay saaf ba toll ci dëbbu daggeen dañuy teg ñu noddu noddu salaatu bi ñu nodd ma ne naay gaaw bala ñoo nodd gee daanu ma dugg ba noppi def ko ci saari bala ñu julli ci fekk ndox mi baax ne bi ma laata dëbb ba noppi sëñ bi ne tëll jëm jëm ci jàkk ja na ma xanaa dégg nodd gi man na ma ko ah kay mu ne su ëllëgee soo déggee teg nodd lépp looy def na nga ko bàyyi ba julli ba noppi donte da ngay jàng bu noddu daanoo it jógal jàkka ja di cay jawal ku buur bi wooni la ñëwal nga naa ma àggale du yoon nee julli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yépp a xóot cat digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njëlbeen waxtu dafa am te digg waxtu dafa am baba catal waxtu itam am na ci ñoñ mooy seen defiin Seex Jiili nee na bopp bi moo ko taarixu la yarxam bii nga xamante ne jumaay Tuubaa ji ñu ngi bëgg a noppi ñuy seet ñan ñoo war a doon imaam yi te loolu moom la xam-xam nangu moom la am xel nangu ndax lu toll ne jumaay Tuuba buñ ko tabaxee ba noppi door a tàmbalee seet kan moo ci jiite ab gag mën naa am ndax man nañoo tànn ku nekk waaye ci biir tur yi ñu ko doon jox ba ñu ko tuddee sëñ Abdou Khadir daa ne ah waaw waaw waaw waaw joo xam ne ëpp na sitti xarakaat لا تهيأ على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر mu ngi ciy sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye ci li soqi ko dañ faa yendu bisu alxames astafirullah altine mooy ma ma ne ma suñu suñu daal ne ma daal jottali ci ndax ci jil gi lay ànd jottali ci kaw jil gi lay ànd mais ci ba ci takkusaan may may jàppi romb ku mu ne nguur si daa war a ñëw mooy bukki njaare mu di mu di ma mu di ma ko fay am ci am ci ku ne su su fekkee yor na ak waayam waaye maa ngi dégg maa ngi dégg ma jàpp loolu ci sama xol am bis mu yónnee ci mu yónnee ci seen xarit ne ko damaa bëggoon mbokk mu noddu ci ajjuma ji mu mu seen sax teg fii bu ñu diggante bu ñu ataaya mu nettali ko ne seen sax si na fi bëgg ku ko noddal ku ko te te dafa ne da ko da ko dafa ne da ko ci mbokk yi la ko bëgg nag ma xam ne kon seen la ma waxoon ci man man maa tax ma daal nag de mën naa ko mu ne ah ah ma ne waaw sëñ Modou kaay ànd ak jullit rek ngeen ne ma ko ne ko am di mën na ko man dama yàq ko lu ci teg ci loolu bu subaa na koy tàmbali ajuma jëna tàmbali keroog ba ngeen keroog ba ñu ci gënoon si ñoom damay damay xool bu may daaneel rek الرحمن الرحيم مالك يوم الصراط المستقيم إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين وتلك أجل القاسية وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصية تصلى نارا حامية تسقي من عين نارية ليس لهم طعام إلا من ضرع ولا حميم جوش وجوه يومئذ nit la nàmp rekk lay tàqamtiku ku askanoo ci mammaaram sëtub Abdu Xaadir ak Balla Aysa mbokkum waa Tiwaawan ak mbusoobe lan moo wara a doonu meloom moom jëmmi sunu la woon ci yoonu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa li ko yàlla defal mooy lu mu xamut lu ne xam na ko lu rek luñ la mënta am rek moom am na ko sëñ Tuubaa loolu dafa def na ko moom moom yi nag ci takku ceef yi nga xamee ne kenn mënu leen a xam ci ko yàlla boole waaw buñ ko toppee wax ji day bari te keneen war cee wax waaye damaa bëgg ñu xam ne sëriñ Abdou Khadre dégg tur wi waaye xam ko lu doy waar soxla adduna ji amu ci dara dara dara dara dara lu soxla lu dul biiru yaram gu mu jëfee ndigal yàlla képp moo ko loxo. day mel ne la daloon waykat euh, rëbbkat ba ñuy wax xidaash ba mu naan takasarati ziba o ala xidaashin fa ma yadri xidaashun ma yasidu mu mel ne ku rëbb bu génnoon doon rëbbi waaye rab yi bari ji moom ba xamatut far lu muy rëbb mooy day mel ne boo bëggee wax ci Cheikh Abdoul Khadir ci ay jikko doo xam jikko jooy tàmbalee ak jikko jooy mujje ci ay jikko moom maanaam géej la guy duusu mu ne si ko matal ndax foo làmb rek fekk mu fees foofa del sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina salaatu wa salaam daa'imin mutawaasilin ilaa ardihi wa liqaa'ihi maa ba'du naas usiikum bi taqwallaah usiikum bi taqwallaah usiikum

ndax wax wet goo xool gis ca Cheikh Abdul Xaadir mu doon ca rayukaay ci sellal muy ixlaas waaye ci taqwa muy ragal yàlla bëgg gi mu bëgg Sëriñ Tuuba ak taalibi bu rafet bi ak shariatul mutahara bi baaw bi bokk na ci jikkoom bu am bu fekkente ne addiya ñëw na dana bég lool ci kaw lu tax muy bég am na lu mën a jox nit ñi bu fekkente ne dem na ba euh, kër ga xaw a sant ndaw it dana da xam ci moom ne moom mii tey amul bégte ndax am na lu mu bëgg a joxe te mu du ko joxe waaye du problème yi denc de mos tukki mukk dañu naaj boo ñëwee jëndooto wala mu ne boo ñëwee tabax kër wala ma defar ci buntu déedéet bu ñëwee ba toog ñi mu war a yónnee ñëpp dañ la yónnee ku ñëwuti dana di ko bàyyi la xel jikko yi ñu tànn daal moom lañ bëgg ñu def ko ci moom def nañ ko ci moom fekk nañ ko ci mottali nañ ko lenn genn genn genn doyadi genn mànk genn suufeel kenn du ko gis moom saa boo ko xoolee rek la nga xotti mu ak mata ngay gis doo gisul mata di mukk ci lépp nag sàppeem si kum kum ci miin nga xam ne bu geesoo gis la rek luñ ko mën a wax ci yow it danaa déedéet moom de ko fonk jàkk la te fu ñu geesoo gis ko kon shariatul mutahara noonu la ko dunde mooy jéem roy ci moom ci ay fonk gim fonk lislaam ak julli juróom amul noor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lëndëm soxlawul sax daanaka àndandoo fu mu déggee kaddu gu yëkkatiku ca jàkka ja sol naw daal la mu jókku ci jàkka ji jàkka ji lu mu taw taw liw liw lu tàng tàng ñett ñi saa boo déggee jàkka ji fekk leen fa sëñ Mbàkke mi ilimaan ji Ibrahima Guèye miy nollu ak Cheikh Abdoul mooy jikko ji nga xam ne mooy salaamatu sadr muy koo xam ne du jàppal kenn dara muy jikko joo xam ne dafa doon jikko ju am solo ci ab jullit ba yonte bi alayhi salaatu wasalaam daana wax sax ne bëgguma ku ma wax ci sama saxaaba yi dara ndax bëgguma cee jàppal kenn dara ku rafetoon ay jikko la ku daa roy yonte bi ci ay jikkoom yëpp siyaani indahu alxarib walbaid yaxtarimul kulla li rabbina almajid lenn lu koy dollil ci jikkoom lu koy taaral amut moom aw meloom rek boo ko nettalee lépp rafet bu jógee bay dox daal lépp xaqiqatul munawara la di léppi shariatul mutahara dafa yamale koo ko jege koo ko sori kum xam ak kum xamut ñëpp la jox war ma ngir jëmmi suñu borom mi nga xam ne moom moom laa jox kon day mel li ma doon tudd ci jikko lépp day mel ne Alaaji Abdu la eh, eh, firndeel na ko ci bayitam yooyu. jëmmi si Abdou Khari ci boppam it benn tomb rek laa ciy jàpp boo xam ne jamono soxla na ko muy athabaatu ala mabda muy way way deng way nag suñ ko dee wax lu baax moom moom baat bi moo mooy maanaam waxuñu koo xam ne ak wayam mi ngi jëm ci bis bu set. dana jël la muy kimmi kimmi ko bu waxtoo jotee wala danay danay dana jël butéel ba muy sàññi sàññi ko waxuñu loolu loolu tudd loolu bokkut ak way waaye soo ko déggee diw ak a way lu baax a lu baax a tax ñuy wax moom la wolof yi naan diw ak a jublang maanaam daal lii mu nekk mënatu ko bàyyi jublang moom la si doxaay daan jëfandikoo sa baatub istiqaama ku ràññee te xamoonuk mbokk bàyyi jiili daana ko jokk ak jikkoom ju rafet ji bi ci jëkk rek nit soo dee waxu baaxam da koy jëkk ci digganteem ak i bokkam ba ca jiitu digganteem ak njabootu Sëñ Tuubaa gi gépp nag laa wax. mataloon lool kóllëre amoon ay diggante yu rafet ak ñi mu bokkal sëriñ Touba daa leen nemmeeku ak a ziyaar yi. man leen waxtu yoo xam ne daal bu jotee kenn ku ne waxtoo bu jotee mu dem seet si la xam nga am na ci ñoo xam ku mel ni sëñ Soy bu xam nga baaxu wutoon moom di jóg waaye téewul waxtu yi seeti. bu jotaa rek mu def ko. mbokkal sëñ Tuubaa yëpp. Mm-hmm. kenn ku ne sàkkaloon na la sa bisu bopp. waxaan mm-hmm. wi daana ko yand si yow. Mm-hmm. waa kër sëñ Tuubaa itam kenn ku ne dalay fekk fi moom di ko ci moom barke. fii wax naa wax yoo xam ne du waxi rajo sax moom waaw ci sëñ Saliou yoo xam ne daal foofu lañ ci mën a yem ndax ah, am na fi ñeenti fan di gane waaye ba mu demee la ma wax si moom doon luñ mën a waxaat. ci ci ci ci rajo yooyu. <coughs> sëñ Blaat moom da koo defoon sëñ Tuubaa moom. sëñ moom da danaan dikk ba ba dikk na fii fekk muy muy muy liggéey. moo agsi mu bëgg a wut si moo wut ab basang bëgg koo tegal mun a bàyyi rek ba mu noppi. daal toog suuf. ci ron pulox yi fii. toog boo sëñ bi fii lay liggéey fi xayma bi. mu liggéey ba noppi daal di dindi korota bi tubaakaay. ma ne ko ah sëñ bi gën ñëw na mu anam ma ne ma ne ko mu ngi waaye jóg dem ba ma ne mu ngi nii sëñ bi daan bëri daan tase ma ñoo di saafonte ñoo ànd dugg ci biir وصحبه وخديمه وسلم تسليما يا من جلاسي Serigne Saliou boole loolu mu leen boole Euh, it sëñ Fallu dafa defoon ku nawloo sëñ Abdou Khadir ndax euh, dëgg la magante wuñ ñoom ñaar ndax am na ci njabootu suñu Fallu ñoo xam ne ñoo féete ak mag sëñ Abdou Khadir wax nañu it ne soxna Aminta Bousso dañuy seet ba xam mook suñu Fallu ku ci féete ak mag waaye nag li nga xam ne moom la ñëpp jàpp te di ko topp ci ku mën a doon muy sëñ Tuubaa loolu la suñu Fallu doon xool ci sëñ Abdul Xaadir sëriñ Fallu sëñ Abdul Xaadir di ko xool ci suñu Fallu ñoo tàmbalee ci li ko gën a jege li ko gën a jege te mooy ay bokkam li ñuy wax jokk bokk ku ne xam na ne ak bokk am na lu ci war te mooy jokk ko ci wax ak jëf ak ak ak ak dox yooyu ñooy li nga xam ne mooy rafetal ak bokk te yooyu yëpp sëñ Abdul Xaadir da ko bàyyi woon xel ba tax na boo tàmbalee ci ñi bokkal sëñ Tuubaa gis nga fi mu leen tegoon ni mu leen bëggee woon moo xam mm, tàmbaleegi cheikh Mahamadul Moustapha al Karim ak ba ci cheikh Mahamadul Murtada ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bët ba mu daan xool seen tubaab la daan xool. daa mel ni daa yorub kusaam daa teewe nan ñëw yi mu daan ñëw ci kër Sëñ Abdul Ahad su ni ma la wone ni niñ ko niñ ko tegee palaasu sëñ Tuubaa mu tedd mi nga xam ni nee naa la jëmmam ji ak moom benn lanu su ma saa ñëw kër sëñ Abdou Lahad eh, sëñ bi pas-pas bi bi muy am ci moom ak cofeel gi day jéggi dayoo su ko masaa defal teraanga mu yendu bay bay war a tàggoo mbooleem néeg bi sëñ Abdou Khadir yendu lu fa nekk dañ koy roñ ci oto topp ko yóbbuwaat ci kër sëñ Abdou Khadir ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek moom moom sëñ Tuubaa la def yaakaar na sëñ Tuubaa am na ci bis boo xam ne li mel ne arme naat bi fi indi woon ñu def ci ñaari nataal nataali jëmmam ak nataali nataalu sëñ Abdou Lahad bañ ko sëñ bi nataal moom kiw am comme jox kii far far nataal yi kooku xanaa daa yëngu ci Baye Touba ba ko ba ko xel mut fekk Baye Touba moo gën a yeewu ba mu ko joxee ne xamal na ko sëñ bi nee naa Baye Touba ñëwawu ko léegi bi sëñ bi génnee ba mu leen laaj nekk li di tax eh, faruñ ko ba mu jëlee bindukaay kii ba jëmmi boppam jala fayar bàyyi fi jëm suñu ablaat di digam ak Cheikh Abdou Lahad kooku mën nga ci wax lu la soob ndax yàlla dafa dogal ñoom ñu déggoo woon lool bëggante lool Cheikh Abdou Lahad si diirub lim na ci xilaafa gi 1968 ba 1989 wax naa ko léegi dafa jëloon lépp luy diine lu jëm ci diine ji rek teg teg ko ci loxol Cheikh Cheikh Cheikh Abdoul Khadir waxoon na ko yaa ma ci doy loolee gis nañ taxawaay bi Cheikh Abdoul Khadir daan taxaw ba jullik àjjuma yooyu ma wax ak li jëm ci wàllu taxawu ñi fi bàyyi koo <coughs> tuddi doom yi rawatina njabootu sëriñ bi ak taalibe yu mag yi nemmiku njaboot gi lépp ba ci recevoir sax gan ñi nga xam ne sax ñooy bàyyi koo bitim réew di ay jullit di ay kilifa yi diine ku fi mas a ñëw rek day wax ne la ak Cheikh Abdoul Khadir ko mas a laaj jëm ci diine moom Cheikh Abdoul Khadir day wax ne demal ak Cheikh Abdoul Khadir déggoo gi ñu déggoo woon moom daanaka day wax ne ñoom ñaar day mel ne xilaafa gi dañ koo séqoon dañ koo bokkoon kenn ku ne am foo jàpp doxin wa rafet lool doyloonte gi rafet lool bëggante gi rafet lool Sëñ laat daan jógal boppam di ko gane ji nga xam ne gane ji ne ko baax daat Sëñ Abdoul Khadir dem na belal gan dégg ay ay gan yoo xam ne ñun ñii li ñu doon doon gone am na ci yoo xam ne fekke nañ ko euh, kon seen diggante diggante bu yéeme la. di mi ngi leen wettali ko. waaw ndax euh, xel dal na dal ci ñoom. Mm-hmm. lépp itam baaxul Cheikh Abdou Khadir euh, defar na lépp tey nag. Mm-hmm. Mm-hmm. kon loolu rek la. taalibe googu dem na ba ci ñi mbokkal sëñ Tuubaa yëpp mm-hmm. kenn ku ne sàkkaloon na la sa bisu bopp boo xam ne bii daana ko yand si mm-hmm. ba yaatal koo yaatal képp koo am ab cër ci mag ñi nga xam ñoo nekkoon ak moom mm-hmm. kenn ku ne xaasaloon na la ci boppam bis bii daana ko ñëw ci yow lépp ngir raas sëñ bi rek ak bëgg ko ak di ko wut looloo taxoon mu di ko def wàllu shariatul mutahara bi moom it dem na ci dayo woon noonu nga koy toppee diggam ak Cheikh Souaïbou loolu it gis nga ak ak ak njabootam mën nga xam ne Serigne Souaïbou ko ci doyoon daanaka lu bari ci seen seenum njàng alxuraan ak xam-xam Hmm, Cheikh Cheikh bi moo ko def ci ñoom daan jóg dem di ko seeti moom mu daan jóg di ko seet si ñu daan nemmi konte di gëm ak Cheikh Saalihu noonu di gëm ak Cheikh Amadul Murtada gis nga lépp loo wax ci kenn ku ne ci ñoom rek day daal doon loo xam ne luñ mën a appliquer la ca ca ca ca ca des wala ca ña ca des nga xam ne moo tax boo demee ci seen biiri kër ñoom ñu bari fekk fa ay jiili moom itam boo ñëwee ci këram fekk fa euh, lenn ci waa kër Sëriñ Tuubaa Eh, te su ko manoon muy góor muy jigéen ñëpp lay lay lay lay jox tur bennoo woon lool ak waa lislaam ji ba doonoon fee tëb këri diine yi gi alxaaji abdul asiis si nee na gannaaw bi mu sakkoo ndigal ci kilifa gi muy cheikh abdul qadir al makki muy cheikh abdul qadir al makki ayyadahu llahu wa nasarahu wa ammara sëñ yàlla na ko yàlla dëgëral dimbale ko wa jamaa fiihi ma tafarraqa fi salafihi saalihi min alilmi walamali walwilayati walirshad sëñ bi ne mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo seddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla na ko yàlla dajale ci jëmmam ji moom Seydi Abdul ومنافع المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها sëriñ mi ne mboolem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yal na ko yàlla dajale ci jëmm ji moo xam ñi dëkke penku la wala sow wala bëj gànnaar wala xam na xëy na bis ci Tuuba waxwaatare bi ne leen biig de dem naa àjjana xam nga loolu rëy la lu mel ni njaaram moo ko yóbbu ànd ak moom naa fii béréb sangam fii béréb sangam fii béréb sangam néew damaa gént kon kooku kooku moom fi fi mu jëm yegg na fi Touba était sous le choc ce matin. Serine Abdul Khadr Mbake a été inhumé la nuit dernière ici, à côté de la grande mosquée de Serine Touba, cette mosquée dont il a dirigé les prières jusqu'à sa mort. Les fidèles, par milliers, se sont rendus sur le lieu de ce qui sera le futur mausolée. métti du ma am ci la mos bëgg mukk ci yàlla moo ko amati mënut a amati sax ndax daa tollam fi man noo xam ne nit ki nag nit dong la. dana maa teral teraanga yoo xam ne nii mënu ko lim mënu ko lim. doy na ci rek firnde bi bi ñu waree xam nañ tuuti. xayma bi fii lañ ko samp ma di ko toppatoo xayma ba ca nekk di ca liggéey di ca liggéey ba yàlla dogal lam doon séenu yàlla fekk ko ca hmm. mu xëy yónni Abdou Mbacke. Mm-hmm. ne ko wool ma suñ muudu. Mm-hmm. mu woo suñ muudu mu ñëw. Mm-hmm. mu ne ko demal foofee ca xayma ba. ñor di nga bëgg. jañ fa nga ragal. yonent bi sallallahu alayhi wa ak i ànd fekk na ma fa. waaw waaw moom lay loolu rek la. naan guy la mooy ki doonoon ci ñun ndey ak baay dem na fu nuy giseeti boroom xar kanam bu rafet te sell mi ñu daa jéer ci kaw lunet yi daa ñu xool bëti yërmande daa gàttandu sunuy aajo di ko faj daa saafara sunuy tawat doon tab bi daa dotti ngëneel fu ñuy déggeeti kàddoom gu dal ga ak alxuraanam ju neex ga kan ci diggante ajjuma ji ak juma ji moo gën a wéet ci demuk ki leen daan noote lu ëpp ñaar fukki at fukki werak benn la def ci xilaafa gi nib melax mu ni mes bàyyi fi ay jullit ak i taalibe yuy yéemu ba tey ci njubam ga dogoom ga pastéefam baag ngëmam ga juróom-ñaar fukki at ak juróom la def ci kaw suuf kem li fi Sëriñ Tuubaa am nib jant bàyyi jiili so borom bustaan ak bagdaat wàcc liggéey matal sëkk li ko boromam digaloon matal sëkk li ko baayam santoon matal sëkk li taalibe yi doon xaar ci moom li am solo ci jàmm mooy yegg mooy li am solo te yegg na yeggale na ndax yegg gi mooy dem na bu doon sëñ waa ndax yaakaar sëñ Bulaat ci digg la tam xaw ma am ci koor yi tege yi jiite ji sëñ bi jiite na tebes gi jiite na tamxarit gi jiite na màggal gi màggal gi jiite na gàmmo jiite koor jiite koor yi yëf yi mat matu ko de sëñ bi daf ñu daan wax ñun ñi ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf xoolal suñu baay sëriñ Abdul Qadir Mbakke xoolal suñu baay sëriñ yam si malak nee bu daan dox dafay mel ne malaaka muy dox yamshi mustahdiran azamatillahi fi kulli ah, ah, marahil ah, fi kulli awqaati nee na waxtu wu nekk bu daan dox mi ngi teewlu màggug yàlla wa jalaalihi ak màggayam nga ba tey kaana qad razaqahu llahu tumaninata wa sakinata yàlla moo ko mayoon ak dal ak tranquillité sayyidu anbiya sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi salaatu wa salaaman daimin mutawasimin ila yawmi ardihi wa liqaa'ihi amma ba'du fa yaa ayyuhan naas usiikum bi taqwallahi يوشكم بتقوى الله يوشكم بتقوى الله قد فات من اتقاه وعافيت من المعاصي قد طاب ما نسى مولاه ولكن طاعته في طاعته يرضاه أنا أبقى اتباع الهوى قد ضل من اتباع هواه أعملكم بالتجميل بالتجميل حبل أن يدخل أجل منتهاه اعلموا أن يا عباد الله أن أنسك الله سكره ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه من الله عسى زمانكم هذا فإنه سواء قل خيره وكسر ضلاه وسخر كل منا بطلب دنياه فخف لقاء ثناء الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وفاعدون غريبا كما كان مبتداه وآسفاه فأخذنا سهيلتاه وإن تسأل في قضائه وتحنى بنا في الجار فذاك الله جمال